acca gars yi comme ni ma ko waxee léegi rek maa ngi mbuur ba léegi euh, si digg ñàkk tang bi euh, mën nañ ne gars yi ñoom ñooy neexal li euh, ne ci ci ba ñu bàyyi ko mu pare rek ñu jël ko ne moo di ci doonu Mbour rawatina ci kër ki nga xam ne mën naa ne moo di Passise ñoom ñoo géré lépp luy sóoroba mooy mooy tëgg yi dañ tey nee nañ ni ma ko waxee léegi xale nelawuñu dañoo sànni seen ay dàll sax soo xewee sax duñ ko sol ñu bàyyi ko ma rek nijaay maa la nuyu bu waaw ñu lay fekk la gën a. da ngay téye sant yàlla bu ma gis la instant dafa mel ni pare nga ah, de. waaw ah. instant pare nañ waaw. mais lii li moo xew moom exact parce que depuis maa gis xale yi nalawuñu. mag ñi nalawuñu koo ci gis mu ne la kankura kankura dafa am lu fi xew wala. waaw comme ni ko doon defee xam nga mosuñoo gisee tey gise nañ daaw nga def ci benn interview xool daaw jéeg la nag. comme ni ko fekkee noonu la fi demaatee chaque jour. neex rek mbuur yëngu. mais dafa mel ni affaire dafay gën a yokk Pape Cissé lan la ci affaire yi wala dafa nekk ci digg ñànkatang bi wala lu xew. waaw mën nañoo dafa nekk ci digg ñànkatang bi parce que instant yii tëdd fii dara te doo tëdd si sa kuta loolu mënul nekk. waaw ah, dëgg la ñoo fi mujjee ñoo nag waaw mais nag am na lu ko yàlla may quoi waaw. dañ ko nangul rek. boo nangoo li yàlla dogal doo sonn waaw. mais dañu gis ne tamit benn affaire bu grave lël yi dafa commencé bëri fi nga xam ne moo di ci diwaanu Mbour est ji du am andi benn impact euh, si li nga xam ne mën naan da koy def parce que bu xasee bëri rek mooy andi ay li nga xam ne moo di violence yooyu yéen a ngi loolu. waaw ñu ngi sóoraale loolu ñun moom suñu territoire fépp fu ñu yemloo fa la ñuy yem ñun waa Cissé Kounda am déet waaw. te lépp loo xam ne ni ñoom ñoo euh, war nañ koo lijjanti am na ñoo xamante ne ni ñoom ñoo lijjanti loolu quoi waaw mais mun ñoo xuus ci lépp nag noonu la fa demee. mais lan moo xew parce que tey jii man bëri na ñoo xam ne dañuy walliance di ñëw fii ne ko ci mel ni man tey euh, lan nga leen di wax wala desan desa benn dimanche desaan na benn dimanche lan ngay wax ñi nga xam ne déjà bëgg nañu ñëw parce que ñu ci bëri rek nee nañu Kankurang wóorul Kankurang rek boo yemee fi ñu la yem loo doo am benn problème da nga ñëw seetaan Kankourang sa heure ñibbu jotee nga ñibbi mais gars yi dañuy ñëw bëgg a seetaan ba buux gars yi ñoo xamante ne ci lañ boo ñëwee bokkoo ci da ngay yem fi nga xamante ne carrément foofu sa territoire kenn du la buux kenn du la lijjanti kenn du sonal am déet noonu la fa demee nag mais dafa mel daa am loo leen di bañ waaw mooy li ñuy bañ bari na bu ñu mel ni lan rek waaw muy mel ni boo boo ci bokkul yow génnal rek nga baa ñu doxal ko waaw waaw ñi ci bokk fu ñu war a yem ak yow fi nga bokk ak yow yow mi nga mu ci yem grand bi maa ngi lay siyaar waaw siyaar baay daa mel ni taxu mooy saa ba dëgër gis nga rek yaa bëgg a bëgg a def deuxième attaque bi deuxième attaque fa jekk dañu laaloon benn waaw waaw da toujours boo xëyee boo commencé six ba yenn nga ñëw ndekki commencé waat bi léegi ngoor gi ngay kontu ngay génnewaat ni quoi pour booy yi xam nga affaire mais ñi mi ngi taw mais teewul ne ndaw ñi dañu gën a mën a am Pastef euh, pour mën a toppaloo mooy kankuraan dafa am lu xew mbuur exact ba ba ngeen koy dund carrément nii kankuraan rek kankuraan kankuraan bu dee kankuraan da ko kankuraan da ko fu mu ñu mën fekk xam nga bu jaralee aussi gars yi ñu tag ay biir ñëw wax dëgg fa yàlla taw bi moom mënul téye gars yi waaw gars yi moom buñ posé si taw bi rek ndëm yi lañ ci xalaat mu tooy affaire noonu mais bu dul loolu moom gars yi moom dañuy dañuy ambiance rek wax dëgg fa yàlla loolu quoi mais Pa Cissé dafa nekk si digg ñàngatang bi tey kenn mënta wax Kankura te doo tudd ki nga xam ne moo di Pa Cissé lan la def ci affaire yi wala lan la leen jàngal wala leen xamal exact quoi waaw non Pa moom lu ma ci wax moom wax dëgg fa rek daa nekk soose xam nga ne da cee nekk sax mais maanaam moom la quoi moom la quoi xam nga rek boo nekkee soose si ndey soose si wax dëgg fa yàlla Kankura moom gars yi pour ñu wax ci dara ci yow day xaw a doy waar quoi moo tax ma daal lu war a def ci la nekk bon ça va quoi loolu quoi amul leneen quoi waaw. wax ji bëri na déjà gis nañu lël yi commencé naa bëri fii ci diwaanu est-ce que tey jii mën ta andi violence ci euh, li ne mën naa ne yéen ciy yëngatu carrément. non loolu moom mënul violence moom moo Kankura ñoo violence moom moo Kankura maanaam secteur bu nekk rek ku affaire Kankura ñu ko war a régler ñu ngi koy mooy waa collectivité Mantec ñoom ñu ngi dox yenn jéego yoo xam ne am na solo trop xam nga ñoom parce ma bi bëri na fi déjà gis nañu immigration clandestine bi nga xam ne ne jotoon naa xew ah, lan ngay si ñaaxaat la nga xam ne euh, mu xaw ma lan bu bees la saa ah, bu bees Baye Fall maa ngi lay nuyu bu baax ñu leen di ziar bu bu baax Baye Fall Pastef bi maa ngi gis yaa ngi daw def yaramu neen nooy dundee ni mel waaw doomu mbuur moom lañ am. moom la ñuy yare si lëli. moom la ñuy wane nii. Mhm. dafa am ay du ñàkk quoi. Mhm. ci lañ nekk nii. mooy li nga gis nii moom la mu demee mais mais moo xew tey jii bu ñu gisee Pastef bi ngeen ànd seen affaire yi ndax la kenn joxu dara ma loolu leer na ma. mais bu ñu gisee ngeen ànd ak paa bi euh, tey jii di ko dooleel ci lépp lan la leen wan ba tax ngeen mën a ànd ak moom. waaw parce que nit bu nekkee bu nekkee ay wan ba ko nit koo fa gis mu ànd ak nit rek am na lu tax nit du kese kenn du ko tax wala dégg am na loo xamante ni Lamine ko laa am na loo xamante des na koy misaal quoi dëgg dëgg mais instant dama nekk si woon trois semaines ngeen jégal ma ko ba mooy loolu. Ah, kon daw rek kon ah, day daw rek amul arrêt yaa ngi foofu. ayca ah, di ko jaajëfal bu baax gis ngeen ko euh, ci kàddu yi nga xam ne jot na ko ci. du ma dara de damay topp lépp dafa mi ngi ñëwaat Thier mi ngi ñëwaat Thier Thier mi ngi ni Thier ñu dawee nii Thier kaay dafa nii Cer xale yaa ngay daw Cer xale yaa ngay daw Cer daa mel ni taxawaat na Cer daa mel ni taxawaat na grand noo dundee mbégte bi. waaw sëñ bi yaa ngi. ah bagage moom neex rek. waaw noonu la ko dundee. waaw ah. parce que moom septembre moom mbuur moom. fii lay mbuur mi doxee moom xoolee mais. fii nga dëkk. non dëkkuma fi na mais yàgg naa fi quand même quoi. waay waay mais mais mais amul loo xam ne dinañ ko ko for ci weewu bay ta paa bi dèjà gis nga ni muy euh, yëngalee euh, rootina on carte fii ni waaw waaw Pa Cissé mooy saa mooy borom jamono ko hmm. waaw fu mu toll nii moom mi ngi yëngal Mbour carrément. looy wax ñi nga xam ne bëgg na ñoo ñëw si temps si. ah waaw gars rek. waaw fair play rek. Ah, waaw kaf ak rey la quoi. booy ñëw non violence nga bàyyi ko sa gàlle mooy loolu yaa ma gën a xam. waaw ok ok nekk dégg nga kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko. Pa Cissé dafa baax eh Pa Cissé damay baaye Cissé Kounda rek barki Cissé Kounda day dem rek si kanam waaw waaw day daw rek gars yi di jaajëfal ñëpp waaw bàyyiwuñu kenn ah bàyyiwuñu kenn laa la PDG ngeen doon am ci micro bi Thier ngeen doon am ci caméraman di jaajëfal ñëpp ah bàyyiwuñu kenn chef dem naa kii ba ci kanam rek xam naa ne ñu jëlaat soru ba bi jee na jaajëf si kanam timis bi. waaw timis maanaam sori baa guddi gi ñu tëjee loolu. Thier mi ngi nii. Thier hmm. mi ngi nii. Thier bul daw mi ngi nii. Thier jàppal mi ngi nii Thier anamu anamu anamu mi ngi nii Thier mi ngi nii non. Ceer li laay wax Ceer li wax jaay daane nañ ma rek yow tuuti amul laa war a wax ma sonn saa yi yow ma daane bi Ceer ngay yow nga dëkk fii Thierry daane nga ma waay Thierry nañ def nii waay. yow ngay sel waay du ma nga ma di Thierry. xool kii di ma ëpp ma ñaawal moom. Sale ngi ne. gaay nee na yàlla baax na non daanu ma damaa te lu may laaj instant bi maay daanu prix bu nga laaj yoo kenn tamit ceer ma sonn naal man yii ma ko ah en tout cas nag ngeen man ni ma ko waxee léegi rek daanu naa maa man mën naa ne la maa tijji jàngi maa njëkk a ñam ci ñàkk tak bi damaa daanu booy ñoo daw ba tël ma na xaw ma Mbappé Mbappé sànq ba ni ma lay tuddee xamu naa ne dig ma daaneel barke sëñ Bamba ma yàlla seen jaamu yàgg képp ku ma bàyyi xel rek chadom naa la bégg naa laale PDG ngeen doon am ah jaajëf comme ça kañ bi kenn da ngeen ci euh, mën nañ ne moom ah. euh, ci digg ñàngatang bi lañ ko fekk ah. waaw mais Bafal maa ngi lay siyaar ci digg ñàngatang bi nee naa la Pape Cissé moo moo moo lëbbëjee ah, nooy nooy dundee bi ak kontaan rek ndeysaan laay walaay amuñu kenn ko du paay moom parce que moo ñu fi nekkal moo ñuy nii ba demee fee ñoo génne ak ba ñoo fi sax zone bii nii mais paay bi ñëw na nag fii dañu wër. billaay daal yaa ma gën a xam daal wax moom. mais mais mais secret la tey Balla Gaye si ngi benn affaire sax benn affaire ci affaire te lii daa am na lu ci ne am ci biir. non rek dara newu ci. dara newu ci dara newu ci dara. nga seex ko nii dara amul. dara dara dara ah, ñàkk ne dama la koy wax rek pour dire na lu fi nekk. parce que sinon gars ji non dara ñëw si surtout dara ñëw si dara ñëw si. koo kese la weer kese la dañu koo jaajëf maam jaajëf maam Thierre gis nga euh, yi nga xam ne mën naa ni yëkkati ko moom ah ñu dem kan la si kan nga bëgg bu kii takk njalabaan bi moom nga bëgg ma këfal la ko waaw kookoy kan ah, salbe la ah sa salbe la ah, mais moom dëgg si maam dafa rafet de daa pare de na bu yàgg laa ilaha illallah suma waa ji maa ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay bàyyi tey sant Serigne Saliou bu baax tamit noo koy dundee rek waa waaw di sant rek mm. di ñaanal paa bi bu baax ndax maanaam kankuran moom boo ci nekkul mënoo ko xam. waaw donc ñun daal ñu ngi kontaan waaw. ñu ngi ciy topp mu ngi neex. ñu ngi dund aajana. Mhm. waaw mais gis ne du ñàkk ne am na lu fi xew ndax bu ma gisee mag ndaw xale euh, ñëpp mën nañ ne euh, fi tasu euh, na la ñu topp ki nga xam ne moo di paa bi lan moo xew Mbour wala ñi nga xam ne tey jii ni bëgg nañu ñëw loo leen di wax. ah xanaa ñu daw ñëw rek. mun mën a gisanteek paa bi ñu gisanteeg paa bi ndax paa bi moom yàlla may na ko. waaw loolu rek la am lu may wax. jaajëf jaajëf di kontaan Thier euh, euh, ñu avancé waat rek dafa mel ni ni ma ko waxee léegi rek euh, noo fi gisee ay mag ah bulow meen yi waaw ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy bulow meenu mbuur yi rek may bàyyi man ñoom mën nañ ne ay bulow meen lañu mais boo leen gisee rek vraiment xaw nañoo yaañu tu ñoom tamit dañoo ñëw topp si li nga xam ne mun naa ne moo di kankuraay waa ji moom rase mi naaj na nijaay maa lay nuyu ça va bien foo jógee man fi laa jógee ko Mbour fii sama koñ bi daa turam waaw mais mais mais mais lu ngeen di dundee mbégte bi parce que tey jii bu ñu leen gisee ngeen def seen seen say yaa ñi ñëw taxaw xool kankuraan ak daw yi da ngeen koy dundee ah waaw comme ni ko gars yi dundee rek comme fii moom mooy loolu noonu yaa ma gën a xam ku xam Mbour moom xam ne Mbour moom septembre moom yaa ma gën a noonu septembre lañ am mhm. bu jeexee nag jeex na waaw ah, comme d'habitude rek mais gars dañu ne am na lu xew fii nii ndax du ñàkk ne ay secret ñi ngi fii euh, tey yow est-ce que loolu mës na cee dugg wala pour jéem a xool lan moo xew fii exactement comme ça ay secret wala ay yaa ma gën a xam ay lax yu am yoon sangatoog yooyu noonu am na am na yu xew fii nii de. Ah, ñoo xamante tamit. lu mel noonu moo fi andi mais am na su ñoo xamante ni comme ambiance bi nii. mbëgte mi daal fi andi yooyu noonu yaa gën a xam. waaw jërëjëf maam mais lii naa leen de. Cher dafa mel ne euh, ma xale yi nañu dawee Cher Cher bul tiit tiit ma caméra bi yow <laughs> Cere ngay daw. Cere ngay daw. Cere ngay daw. Cere ngay daw. Cere ngay daw. Cere ngay daw. Cere bul daw. Ah ba ma daw. Bul daw. La la la. Cere ngay daw. Nako jaase la. Cere bul daw. Nako jaase la. Lan la. Jaase la. Cere bul daw. La xool xale jigéen ñi. Mais mbuur neex na. Ah, mbuur neex na. Nga jaase bi. Ah. Xool xale bi xale bu jigéen boobu taxaw. Waaw. Ah. Non ma ngay ma ngay tourner mais Cere. Cere est-ce que doo wàññi tuuti. Ah, wàcce wàcce wàcce. Wàcce waaw waaw dañuy wàcce. Dañuy wàcce. Eh, mi ngi noonu Thier mi ngi noonu Thier dawal dawal bul dawal Thier dawal dawal jiw laa ilaha illallah laa ilaha illallah ma xale yi dañuy daw yow lu naaram mbuur a ngay neex ci Sénégal instant Thier xale yaa ngay daw Thier Thier xale yaa ngay daw mel ni kankuraa bi jaar na ne la tàllal daa tàllal ceer daa tàllal xale yaa ngay daw la ilaha illallah muur lii mooy muur lii rek baax na lii rek am na ñoo xam ne lii moo leen fi andi après ñu ñibbiwaat te lii man man man misaay ni ma koy dundee dafa neex barke Serigne Touba ma ko amul xale amul mag jël ni dawe lépp li nga ma mooy Kankourang lii mooy muur aram aram aram aram aram ndeysaan ci cer. kaay cer bu ko cer bu coupé de cer bu coupé. am na ma ne la cer camion la jaar. cer camion bi bu coupé cer bu coupé anamu. cer anamu. ah anamu. non cer doo am problème. eh, eh anam wallaahi lay la nee naa la lii daf may fàttali jamono bu président Ousmane Sonko bu ñu tuuri lekk bu mos a nii loolu lay fàttali kenn Thierry eh. yëkkati Thierry yëkkati maman da ngay daw maman looy daw alhamdulillah sa bravo coupé coupé